kon mbokk yi alhamdulillah wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain ñi ngi dellusiwaat ci sunu téere bi ñuy topp di risaala bu ibn abi zayd alqayrawani rahimahullah ñu ngi jëm ca njeextal ga war a jël tey ñeent fukkeelu bunt bi ak ñeent baabun fi taalujin wa zikrin wa ruqaa mu ñeent fukkeelu bunt bi ak ñeent bu dee samaru daani bi yaa nga ca page sept cent dix boo mën a yorit nga xool rek mi ngi noonu ñeent fukkeelu bunte ba ak ñeent bu dee ni xabaar yiñ jot ci weer bi xam nañ ni sunu dimanche tey jii moo nekkoon fan wéereelu fan ci weeru rajab kon suñu guddik tey jii dugg nañ ci guddi gu jëkk ci weeru shaabaan sunu maam yi di ko wax baraxlu di weer woo xam ne nii yonent bi alayhi salaam nee na daan ci yëkkati jëfi jaam yi jëme ci yàlla loolu it moo tax ba lam daan naafila ci yeneen weer lam daan naafila ci shaabaan moo ko ëpp muy weeru kon waajal weeru koor ni ngeen gisee lu ci bari ci julli yi am ay rawaatib yu ko jiitu maadaama weeru koor it di weer wu màgg moo tax it yonente bi alei salaam sunnaal lu waay man mu woor ko ci shaaban boobee yàlla mi nga xam ne it moo ñu wërsëgal ñu dugg ci moom la ñuy ñaan yàlla nañu yàlla wërsëgal ñu fekke chahru ramadan te ñu dund ko ci ngërëmam ba jeexal ko ci ngërëmam kon tey mooy tombee git le 14 mars ci 2021 incha allah su dee ne ñëpp bokk nañ gis ñu jël la nga xam ne mooy sunu bind bu jëkk kon lii da lay tuddee baaboon ca téere bi ab téere la ñu tudd ko kitaab téere nag boo xam ne daa ëmb ay bunt bañ dalee jàng ak léegi ñu ngi dal tey ci ñeent fukkeelu bunt bi ak ñeent ñu ngi noonu baabun fii taalluj buy jàngale faju wa zikri ruqa ak tudd lenn ci ay mocc wa tayrati ak lenn ci gaaf wan wan nujuumi ak lenn ci xam-xamu bidiw wal xisaa yi ak lu jëm ci wàllu tàpp dañuy tàpp jurga wal wasmi ak lu jëm ca la nga xam ne mooy ay ñaas wal kilaabi ak lu jëm ci jàngale attey xaj wa rifqi bil mamluk ak lu jëm ci ñeewanti jëm ca jaam ya nga xam ne yàlla da ko teg suñuy loxo kon bunt bi lii lépp dana la ca tuddal dara su ko defee bu dee da ngay jàng dafay wax ni wala ba'sa bil istirqaa'i min al ayni dara nekkul ci sakku mocc te la nga xam ne mooy bët bu ñu ragal ne daa dal nit ñi wa gayriha ak leneen lu dul moom wa taawuzi ak la nga xam ni mooy sakku laqu ca yàlla muy muslu wa taaluji ak la nga xam ne mooy faju wa shurbi dawa ak naan la nga xam ni mooy garab ga ngay naan wal fasdi mooy la nga xam ni nii ab néwi néwi la ñu xotti ko ngir deret jigéen wal kay moom mooy ñaas ci safara ca la nga xamee ni nii moom it day nekk lor gu nekk ci yaramu doomu aadama wal xijaama mooy li ñuy tudde ay wantuus fexe ba génne deret ba wayoon ci biiru doomu aadama ñuy utiliser kaas wala ay béjjën mu ne loolu lépp xasana nekk na loo xam ne lu rafet la lu nit mën a jëfandikoo walkoholu li tadaawi li rijaal lii di tusngalu nangul nañ ko góor ñi bu dee dañ cay fajo gannaaw ba ñu ngi noonu kon loolu jaayis lu lu mën a nekk la wa huwa min zinati nisa doonte ne loolu ci taaru jigéen ñi la wala yutaalaju bil xamr kenn du fajoo sangara wala bin najasa kenn du fajoo la nga xamee ni nii moom mooy sobe wala bi ma fiihi mayta kenn du fajoo loo xam ni ak middi da caa nekk wala bi cheyin mimma harrama allah wala lenn loo xam ne nii suñu borom yàlla da koo araamal subhanahu wa taala mi ngi noonu kon mbokk day lay wax fii rek ni islaam nangu na la nga xam ni moom mooy mocc rawatina ci wàllu bët te it mbokk loolu nga xam ne mooy bët yonent bi alei salaam daan wax ne al aynu xaq bët dey loolu lu dëgg la looloo tax ba doomu aadama mën na feebar fekk na li ko ko teg mooy bët moo ko ko dal na doon kooku xale la wala na doon kooku mag la moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam daana jàpp ca ñaari bopp sëtam yu tedd ya xasan ak ak ak xuseynu di wax uizukuma bi kalimati llahi tammati min kulli shaytanin wa hammatin wa min kulli aynin lamma maa ngi leen di laq di leen sàkku muslu ci kaddu yàlla yu matale yi ci bépp shaytaani mu bañ leen lor wala lenn lu ànd ak dangar di leen lor wala benn bët boo xam ne nii daf leen di lor loolu kon dara nekkul mocc googee ñu def ko loolu it lay wax julit am nga droit di muslu wala da nga war nekk di muslu lépp loo xam ne nii da nga koo ragal donte ne dana ci dellu siwaat mu ne boo feebaree it man nga naan garab ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo ne te daawa te daawa ya ibadallah dee leen faju yàlla du wàcc feebar lu dul wàcce ne lu koy faj ñu ngi noonu mu xam ko ko ko xam ak réere ku ko réere waaye it loolu mbokk dañuy gëm ni feebar bu mu mën a doon la koy faj mi ngi ci kaw suuf day fekk nag ni léeg-léeg bala ñu koo xam mu yàgg lool ay bari na ay feebar yu fi yàggoon ay rage ak ay tuberculose ak ay yooyu yëpp jaaxaloon maam ya léegi dañ koy traité doonte ne ay sida ak ay corona ngi nii xamuñu lu koy faj waaye la koy faj moom mi ngi fi kon dara nekkul ci naan lépp loo xam ne mën na laa faj la nga xamee ni it mooy xëy na léegi jafe na suñ jamono tey ñu koy jëfee waaye suñ maam yi daañu ko jëfe lu bari mooy la nga xamee ni nii mooy nit ki am ak rëq-rëq ci fenn ci yaramam ñu ñaas ko ñaas googee day tax deret di circuler wala mu am foo xam ne deret ji dafa bloqué wu ñu gàjj ko mu daal di génn mi ngi noonu loolu lépp maam yi dañu ko daan jëfe mu ne bu dee da nga am problème mu bët yow góor mën ngaa tusngalu ngëree jublu ci la nga xamee ni mooy faju ci ay bët yonent bi alayhi salaam daana tusngalu amma nag bu dee ngir taar kese moom góor may ñu la ngay génn di tusngalu ngir taaru loolu jigéen lañ ko may jigéen yoonal nañ mu tusngalu ay bëtam comme niñ ko yoonal mu fuddan ay loxoom mi ngi noonu mu ne bu dee da ngay faju nag doo fajoo sàngara lépp lu jëm ci sàngara julit du fajoo sàngara mi ngi noonu julit du fajoo am sobe loo xam ne sobe la julit du ko du ko du ko fajoo allahuma lu dul nag ni bàyyima yi nga xam ne yàlla may nañu ñu lekk leen la nga xam ne seen saw la loolee du sobe looloo tax nit ki mën nga fajoo sawu xar bu dee gis nga ñi ci lu lay wé- lu lay wéral wala lu mën a doon am na ay nit ñu mës a ñëw Madina yàlla dogal ñu feebar fa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da leen dem leen ci àll tel am na sàmm ya fa nekk di sàmm juri zakat yi su ngeen demee ngeen di naan ci ndox mi ngeen di naan ci meew bi di naan ci sawu giléem yi bi ñu demee nekk fa fan yu néew ñu tani ñoom ñëpp ñu tani ñu bàyyi ba guddi sàmm yi nelaw ñu ñëw ren di sàmm yépp jiital jur gi dem xabaar bi yàlla xamal ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu yónni ay jàmbaar yu ndaw ñu dàq leen ba jàpp leen mu jox leen nit ñoo xam ne lañ méritoo la te naka yàlla waxee dagg seen loxo dagg seen tànk boole na ci sax fuq seeni bët sànni leen ci montagne ñu nekk di yuuxu di yuuxu ba dee par benn ba jeex ndax ñoom loolu ñu def dafa nekk trahison bu jéggi dayoo ñu noonu trahison bu jéggi dayoo lañu def loolee kon bu dee ay sawu bàyyi yi ñu lekk loolee mënees na koo jëfandikoo amma bu dee sawu bàyyi ma bundul lekk loolee kenn du ko jëfandikoo lépp loo xam ne it médd la dafa dañ ko jële ci médd it kenn du ko fajoo ci lépp lu yàlla araamal allahuma lu dul nga toll ci xaal boo xam ne expérience wane na ne lii kat dong moo la fi mën a faj te expérience wane na ne lii ma mën na laa faj bu dee lor nga yegg na foofu moom waram xam-xam yi dañ naan niñ la mayee nga lekk midd ngir ngir ngir mucc ci dee lañ la may it nga mën a fajoo lu lay muccal ci dee charte ba mooy yaqin am na ne ni lii da koy faj ñaareel ba mooy amuñu leneen lu dul lii bu dee looloo da ngay gis ni moom dañ la ko may ci loolu kon mbokk loolu mooy bind bi nga xam ne jotoon nañ ko jàng incha allah ñu jël beneen bind mu ne wala ba'sa bil iktiwaa'i dara nekkul ci ñaasu waxoon na ko sànq war ruqa bi kitaabillah ak mocce lii di téerab yàlla bi wa bil kalaami tayyib ak mocce ay kaddu yu teey wala ba'sa bil mu'aazati dara nekkul ci ay musluwaay tu allaqu yoo xam ne nit ki da koy bind di ko takk wa fiha alquranu bu dee la ca nekk kay mooy alquran wa ida waqa alwabaau bi ard su dee am mbas muy épidémie dafa dal ci benn suuf ardi qawmin ci suuf ay nit fala yuqdamu alayhi yow ma nga xam ni nekkoo fa woon bul dem ca dëkk ba wa man kaana biha ku mu fekkoon ca dëkk ba it fala yaxruju firaaran minhu bu mu ko génn mukk ngir daw ko mbokk mi ngi noonu kon mbokk la nga xam ne nii mooy ñaas ay gaañu gaañu bi nga am sa sa yaram loolu lislaam tëral na ko doonte ne yonent bi alayhi salaam da doon wax ne moom bëggu ko moom bëggu ko doonte ne day faj bëggu ko lu waral loolu mooy safara gis nañu ne yàlla da koy mbugalee yéeféer yi loolu tax julit moom bëgguñu ngay jëfandikoo loolu amma bu la ci lor yóbboo it dara newu ca ñi nga xam ne nañ ci expérience loolee nekk na loo xam ne luy faj la gannaaw ba mu ne dara nekkul ci mocc mbokk la nga xamee ni ni mooy mocc da ngay gis ni lu lislaam yoonal la lu lislaam yoonal la te loolu mooy la nga xam ne mooy médecine mystique ci loo xam ni yéeféer yi waroon nañ cee gëme yàlla jalla waala masalan soo benn waay yi nii jaan màtt ko léegi da ngay gis ni lan la ci tubaab bi xam mooy sérum antivenimeux benn waay jóge fële ñëw jàng li muy jàng rek mun a cekkaw jóg taxaw mais loolu loolu lu yéeme la abi saïd al xudri ba ñaan léegi sahaba ya ñu dem ci benn dëkk ñaan waa dëkk bi lu ñu réere waa dëkk bi bañ ñu dem beru fële ne suuti rek yàlla yónni lu matt borom dëkk bi seen xarfa foofa yépp ñu indi ko waa ji nar a dee seen loxo ñu waaw nañ dem ca ñee laaj leen ba xam bi ñu ñu daa amu fi yéen ko mën a moccawaay abu say ne la ah kay man mocckat la alors ñu ne ko kaay sunu waa ji mu daa da ngeen may jox gétt ci seen xar yi de ñu ne ko d'accord mu ñëw tiim fi mu ko mat bu jàngee fatiha ëf ci jàng fatiha ëf ci bu mujj waa ji ne xefet jóg taxaw mel ne dara mosu koo dal ñu jox leen jur gi ñu leen jox biñ ñëwee saxaaba yi bëgg a commencé ren di mën a déet man lii dama ko def sama ijtihaadu bopp il faut ñu dem ci yeneen ci yàlla bi laaj ko ba xam biñ ñëwee ci yeneen ci bi alayhi salaatu wasalaam laaj ko mu ne waaw abu sayid ku la xamal ne fatiha day mocc séddoo leen ci jox ma ci saa wàll mi ngi noonu di moom mooy indi fatiha mi ngi noonu séddoo leen jox ma ci saa wàll kon mbokk mocc yooyu bokk na ci fatiha bokk na ci ayatul kursi bokk na ci li ñu tudde muawisat qul huwa allahu ahad qul anil falaq qul huwa min nas yi yépp da ngay gis ne ay mocc la yu nit ki mën a mocce am na yoo xam ne ay kaddu la ay kaddu yàlla ay zikrullah yoo xamee ni nii tey yàlla subhanahu wa taala may na ci doomu aadama lu bëri xam ngeen ni jaan yooyu ma leen di wax am na ci jaan yoo xam ne buñ la màttee dañ ciy bàyyi bëñ daani co yooyu bu ñu la màtti dañ ciy bàyyi bëñ médecin bi xam nga lu mu xam jox la benn piqûre boo xam ne dana wàccee dangar ji jeex na mais bëñ boobu mënuñu ko dindi mi ngi noonu su ko defee boo demoon léegi ci lugu ko tijaan yi bëñ boobu dañuy koy jël topp ko di ko mocc di ko mocc di ko mocc ba mu wàcc ñu génn ko ni nga gis mi ngi noonu ñu génn ko ni nga gis loolee da ngay gis ne mi ngi noonu yàlla dogal na ñun suñu waa kër maam yàlla may ni leen fi loolu allahuma nag ni imam Sarr du mocc jaan yooyee ndax waa kër maam waa kër yaay la ca xam-xam yooyu duñ ko jàngal lu dul ñu sant mi ngi noonu seen seenu sant mi ngi noonu ala kulli xaal waaye loolu lu yéeme la da nga daan gis koo xam ni jaan mën na ko mat pendant sept ans ba tànk bi yàqu ndax bëñ bi day yéeg day yéeg bu yéegee ci articulation da koy bloqué ba tànk bi lemu mais bu ñëwee dañ koy jël di ko mocc di ko mocc di ko mocc muy wàcc di wàcc di wàcc ba génn ñu rocc ko nii gis ñëpp wane ni nga noonu loolu bokk kaw téef la boo xamee ni nii yàlla subhanahu wa taala def na ko te la nga xam ne mooy mooy ay kàddoom su dee ne kay lam ci tegin mooy kalaamu tayyib la ñuy wax amul lenn lu ko rax ci shirk rasul sallallahu alayhi wasallam doon wax naan la ba'sa bi ruqa ma lam yakun fihi shirk mi ngi noonu fii ak shirk amu ci donte ne nag am na benn mbir boo xam ne nii moom dab nañu mooy li ñuy tuddee centre ruqiya yi nga xam ne tasaaroo na tey ci Sénégal wallahi trente ans ci gannaaw amu fi woon tey lu ci bëri koñ boo dem centre ruqiya ña ngay nekk di yuuxu di nodd di laaj nit ñi ay cent mille ay cent cinquante mille ay nangam mbokk loolee sahabatul kiram xamuñu ko woon te ñooñu gënoon a xam alquran ak sunna wala ñu bàyyi ci xel bu baax ci bëri ci doomu aadama yi psychologie doomu aadama yi la ñuy utiliser loola mën a daal boo ñëwee ñu dal nangam lu yàggul dara sama benn jarbaat am na fu mu dem soxna si feebar bu mu dem waaju na ko waa waaw ki de ngelaw moo ko dugg il faut ñu ruqi ko ndekete dara amu ci guwaatar dong nga ko daloon ba mu commencé traitement ba la jeex su ko defee bari nañ di rey doomu aadama yi au lieu ñu yóbbu leen hôpital ñu bari leen di leen wax loolu loolee ngeen bàyyi ci xel bu baax yow mii yóbbu malade bi bu doon yow la ñu yóbbu yow lañ ne yow la seytaan yu dugg lu leen ko xamal ku mel ni Cheikh Nasrul Albani da ko daan wax mu ne yonent bi alayhi salaam nee na boo demee ci seetkat mu wax la nga nga nga nga dem ci seetkat rek lam la wax même bu dee gëmoo ko ñeen fukki fan kenn du nangu say julli waaw nan ngay demee ci ab ruqiyikat mu ñëw ngeen ñoo toog mu xool xool ne waaw ah noo kii seytaan yoo ko solo ngelaw ko solo loolu xëybu la lu ko xamul xëybu boobee loolee di mbir yoo xam ne mbokk nañ ci bàyyi xel bu baax mocc day am na ci njort mooy ñu kii ne jort ne ci bët moo ko dal wala jort ne seytaane ci dal waa ji ñaan yàlla ci ñaan gu sell yàlla day mën na koo barkeel mu jóge ci wér luñ ko ca joxit dagan na ci moom waaye nga ñëw mu dogu ne leen kii nanga ma ko def cent cinquante mille nga may fay deux cent mille nga may fay fii ma toog nii benn jeune ñëw na ci benn waay bu ma xam lool ñëw ne ma dañoo dem ma yóbbu fa suñu malaat mu ne ma cent cinquante mille lañ koy fay fii ma taxaw nii su ko defee mbokk loolu ngeen bàyyi ci xel bu baax bu leen ci joxe seen xaalis mi ngi noonu bu leen ci joxe seen xaalis ala kulli xaal loolu la wax mu ne dara nekkul ci takk téere takk téere bu dee téere ba alquran la yaakaar naa it yéen ñi yàgg fekkee waxtaan yi yàgg ngeen xam ne yàgg nañu wax ixtilaaf bi nekk ci borom xam-xam yi am na borom xam-xam yoo xam ne dañuy jàpp ne suñu borom nee na wa nunazilu min alquran ma huwa shifaun alquran wàcc nañ ci loo xam ne shifa la ñu ne shifa boobu nag sawaun nga nga bind ko naan nga tari ko raay wala nga takk ko c'est la même chose kon ñoom maadaama li ngay takk alquran la lañ cay chartoo rek mooy na nga ko lëmës ëw ko wala nga dugal ko ci morso ba mu protégé ko donte ni ne am na yeneen borom xam-xam yoo xam ne dañ koo bañ ndax ñu ne yonent bi defe ko ay saxaabaam xamuñu ko woon ci ñoom ca yonent bi dafa waxoon ni ne képp ko takk dara yàlla dana ko bàyyeeg moom loolu ak lu mën a doon man day wax dëgg yàlla takku ma takkaluwuma waaye nag duma yem lu dul ci ne ixtilaaf la ci borom xam-xam yi bu dee waaji la muy takk alquran la wala zikr yu jóge ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam amma bu dee li nee na loolee julit du ko takk du béjjën du pettaaw du cuur du lu mën a doon loolu ñu bàyyi ci xel bu baax kon loolu la wax ca wàllu googi mu ni su dee ne benn épidémie dafa am fenn bu leen fa dem su dee ngeen da ngeen faa nekk bu leen fa génn te lii it mbokk jullit war nañoo xam ne yonent yàlla muhammad mooy rasulullah te yi nga gis lu bari ci doomu aadama yi la nga xam ne moom la ñu tuddee porteur sain xamuñu ko te tey épidémie dana nekk fii yow jàngoro bi nekk sa yaram yow dara dalu la nga jóge fi yóbbu ko feneen walla fa ay nit ñoom ñi feebar ca dee looloo tax avant médecine di gis loolu ci loo xam ne yàggul dara islam moom depuis quatorze siècle la waxoon ne fépp foo xam ne épidémie am na fa yow ma fa nekk bul génn yow ma fa duggagul bul dugg mi ngi noonu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waaw kon ñu jël beneen bind wa qala rasulu alayhi salaam fi shu'um yonent day wax na fi shu'm ci la nga xame ne nii moom mooy ak gaaf in kaana fa fil maskan su dee gaaf day am na dana nekk ci kër wal mar'a dana nekk ci jigéen wal faras dana nekk ci fas wa kaana alayhi salaam yakrahu sayyi'ul asma yonent bi da daan bañ tur yu ñaaw wa yuhibbul fa'la al hasan daan bëgg gaat nga gu rafet wal xusl lil ayn cangaay ba ñuy wax ñeel bët an yaxsil al ainu wajhahu mooy kañ jàpp ne moo xool waaja ba bëtam lor ko ñu raxasloo ko kanamam wa yadayhi ak ay loxoom wa mirfaqayhi ak ay concoom mi ngi noonu mooy diggante loxo bi ba conco ba mi ngi ay concoom mi ngi noonu wa rukbatayhi ak la nga xam ne mooy ay ëwmam wa atrafa rijlayhi ak la nga xam ne mooy cati tànkam wa daaxilahu wa daaxila izaarihi ak la nga xam ne mooy biir sër ba mu waddoo wala tubay jëm sol loolu lépp ñu def ko fi qadxin ci benn kël summa yusabbu ala almain gannaaw ba nag ñu sotti ko ka nga xamee ne nii dañoo ragal ni bëtu waaja moo ko lor ni ngi noonu mbokk kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da daan wax gaaf amul gaaf amul su dee am na daal mi ngi nekk ci kër wala jigéen wala fas lu jiitu ku mel ni yaay Aïcha da daan wax abi hurayra mi solo hadis bi abi hurayra déggul yonent bi dane waa jaahiliya day ñoo daan gaafal kër ak jigéen ak fas allahuma lu dul xadis bi it xadis bu wér la boroom xam-xam yi dañu ne kon gaaf amul ci lenn waaye na gën a am ci kër gannaaw ba it nañu déggee gaaf ci kër lu bari ci ñoom nañ ko firi mooy kër goo xam ne da nga fa am dëkkandoo yu bon kër goo xam ne nii dafa xat ci yow loolee da ngay gis ne moom la ñu wax kër gu bon allahuma lu dul doomu aadama it mën naa yëg ne kër sàngam day ba ma fa dëkkee ay tolof tolof dafa tegaloo sama kaw loole da ngay gis ne su dee da nga koo yëg ci yow it mën na doon loo xamee ne nii lu ñuy mën a jàppee ci gaafu kër allahuma lu dul la ma la jëkk a wax loolu la borom xam-xam yu bari jàpp gaafub jigéen lu bari lañ koy firi mu jigéen boo xam ne nii amul benn njëriñ bu mu la amal ba pare ñaaw lammiñ ci yow tolof tolof ci kaw tolof tolof ñu ne loolu mooy la nga xam ne mooy gaaf yi donte ne ñun bu dee sénégalais soo amee jëkkër mu dee ñu may la kañal mu dee moom see boo yow ngi noonu ba matu ñu ne diw dafa gaaf waaye ala kulli xaal mbir la boo xamee ne nii soo demee ba yëg ko it ngir bañ a indil sa bopp jaxas nga boo ko mën a moytu nga moytu ko allahuma lu dul lu bari ci borom xam-xam la ñu firee gaafug jigéen mooy ñaaw jukkoom ak ñàkk njëriñam ngi noonu gannaaw ba gaafug fas ñu bari dañuy jàpp ne fas am na ca fas yu gaaf nga xam ne bu nekk ci kër gi mën naa indi ay fitna du jóge ci kër gi boo ko waree di tukki doo am lu baax kaza wa kaza doonte ne borom xam-xam ya digg doomu moom dañ ne gaafug fas daal mooy bañ ga muy bañ màmm ga muy màmm ak yow boo ko waree du lu indil njëriñ ila axiri almuhim loolu ñu bàyyi ci xel bu baax yonent bi alayhi salaam ni daanañu jàngal ne heure boo yégee ne gaaf am na ci mbir da ngay wax allahuma la xayra ila xayruk wala tayra ila tayruk wala ilaha xayruk ay yàlla gaaf amul lu dul sa gaaf ay yàlla ya dogal lu la neex la nga xam ne ni yiw amul lu dul saw yiw kenn yeyewul ñu koy jaamu ko dul yow loolee kon la wax ca wàllu googee yonent bi alayhi salaam ni mu bañe woon gaaflu noonu la bëggee woon nag gaat nga gu rafet mooy ay tur yu rafet heure bu masaan déglu lu lu baax da koy bégloo mi ngi noonu tur bu rafet noonu la bañu woon tur bu bon benn waay masu am fu mu dem benn waay ne ayow murra may ñu meew may rakkal ñu xar yi te mooy ay yow ku wex ki yonente bi ne déedéet mi ngi noonu am na keroog bi muy dem fële nga xamee ne nii mooy xaybar ñëw na ci ay yoon yoon yi xar ñaar mu laajte ñu ne waaw yoon yi nu mu demee nii ñu ne ko yoon bi day mooy dalal jàmm marhaban beneen bi nag mooy yoon boo xam ne nii yoon bu dëgër la waaye nag moo gën a gaaw mu ne déet nañ jaar ci marhaban gis ngeen te loolu mooy gaat nga boobu ngay génn masalan di uti dara benn waay ne ah si affaire bi da baax na fekk waxul ak yow te da nga koo dégg noonu rek loolee la ñuy tuddee gaat nga bu rafet gis ngeen ak it la nga xamee ne nii ngay jëfleeg nit jëflanteeg nit laaj nu mu tudd ñu wax la tur bu rafet loolee feeñ na keroog bi ñuy jaayante ca la nga xam ne mooy bay atu ridwaan waa makk yónni nañ ñaari ndaw lu jiitu affaire bi échec ba troisième ndaw bi ci histoire bu gudd bi ngeen yàgg a dégg fii troisième ndaw bi ñu yónn suhayl ibnu umru bi ko yonent bi seeni mi ñëw mun a sahaaba yi sahul al amr jàmm yombal am na mu daaw lu tax mu ne kay mooy suhaylu te mi ngi jóge ci sahul mooy ak yombal gis ngeen tur bi rek ci la yonent bi alayhi salatu wasalaam gisa loolee ñu wax kenn ci sunu mag ñi dañ ko war a yóbbu opération bu xaw a compliqué bi mu génnee rek dajeeg benn sëtam bu ñuy wax Aïcha mu ne ñu ma àndaloon ah dañ ma yóbbu du ma dee tey ndax Aïcha mooy ku dund ki comme Aïcha laa dajal du ma dee gis ngeen ala kulli xaal loolu mooy gaat nga bu rafet waaye moytu nag gaaf gaaf mooy siintu lu ñaaw gaat nga gu rafet nag mooy siit siintu lu baax kon loolu yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax mooy alfaalul xasan gannaaw ba nag mu wax ci nit ki bu dee ni dañ koo jiiñ ni dafa xool nit ki bët bu bon loolu naka la war a def mu ne ku mel noonu ci cosaan boobee di gis nañ ni ñaari sahaaba dañoo ànd amir ibnu rabia daa ànd ak sahlu ibnu hunayf ñu dem ñu ngi doon waajal yonent bi génn benn xare am benn place ndox ñu ñëw ko rek suhaylu summeeku ngir sangu bi mu summeekoo rek ambir ne chatat tat waaye kii yaram ma yaram ma bee rafet waay kii jànq ji sax moo leen dàq yaram suhaylu na dag dag dag dag dag ne këpp ci suuf sahaaba yi yëngal yëngal mu ne këpp ñu daw wax ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam yonent bi alayhi salaam ñëw daa dina yéen kenn ci yéen day rey moroomam ana lu tee ko lawla baarakta bi ngay gisee lu la yéem lu teewoon nga ne tabaarakallah mi ngi noonu kenn ci yéen bu gisee lu ko yéem ci mbokk julitam wala ci alalam fal yu baari la wax baarakallah mi ngi noonu donte ne bokk na lu siiw ci nit ñi mooy macha allah la quwata illa billah waaye la gën a nekk cosaanoo ci yonent bi alayhi salaam mu ne fal yu baari la wax baarakallah daa di ne waaw kan ngeen jàpp ne moo ko wax lii ñu ne ko amir la yonent bi woo ko ñu ko woolew daanaka mu jàppaloo ko rek te mooy raxasloo na ko ay loxoom raxasloo ko la nga xam ne mooy ay concoom raxasloo ko kanamam raxasloo ko ay óomam mi ngi noonu gannaaw bi it na ko sër bi mu waddoo na ko jël dugal ko ci ndox mi loole bi ñu ko defee ci benn këll yonent bi jël këll bi da ko sotti sëhlu rek sëhlu jóg ne xefeet mel na dara musu koo dal loolee kon képp koo xam ne nii bëtam dafa dal nit loolu lañ ko war a def waaye du Sénégal de Sénégal de koo koy fa mun a mën ngay ji ñu dëmb gis ngeen moo ko dëmb islam xamul luy dëmb waaye nag islam xam na bët alaynu xaq yeneen ci bàyyi islam nee na bët dana dugal nit bàmmeel bët dana dugal gilim ci kër diir gis ngeen wala arab yi sax amoon nañ ay aada am na ñu ko xamee woon ñoo xam ne lu ñu gis wax ko rek musiba dal ca te loolu it mooy tax li gën a garaaw bëtu iñaan mën na lor doomu aadama bët kese am na ñoo xam ne mën na lor waaye mi ngi gën a metti nag su àndee ak làmmiñ mi ngi noonu amoon na benn téere boo xam ne ñaari bët lañ ci di seen ak làmmiñ bu bocceeku te mooy bët ak làmmiñ bu àndee rek day andi musiba moom la mu rafet naan wala fi naan yàlla yàlla musal ci cat mi ngi noonu mooy cat bi ngi si ñu ngi ci jublu làmmiñ yàlla nañu yàlla lafal cat ñu ngi ci jublu làmmiñ loolu kon islam xamul dëmm waaye xam na bët looloo tax ba sa alal say doom sa sa sa kër sa lu mu mën a doon lépp loo gis mu yéem la rek da nga naan tabarakallah allahuma barik ay yàlla yàlla na nga barkeel mi ngi noonu kon ñu jël beneen bind mu ne wala yanzuru fi nujum kenn du nekk di xool ci biddiw yi ngir da ca xamee ay xabaar illa ma yustadallu bihi ala alqiblati lu dul la ñuy tegtaloo ci xibla ya wa ajzai leyli ak la nga xamee ne nii moom mooy catu guddi ga mi ngi noonu wa yutraku ma siwa zalik leneen lu dul loolu dañ koo war a bàyyi mu ne wala yutaxazu kalbun fi duur kenn du jël xaj ca la nga xam ne mooy kër fil xadar yi bu dee kër ga dafa nekk ca dëkk yu taax ya wala fi duuril baadiya kenn du ko jël ci kër yi kaw ga illa li zar xanaa lu dul ngir sàmm am mbay aw maashiya wala sàmm ab jur yasxabuha fi sahra muy nar a ànd ak moom ca àll ba suma yaruuhu maaha gannaaw ba mu daal di dellu si ak moom aw li sayd wala boog muy xaj boo xam ne ngir rëbb ba tax yastaaduhu li ayshihi mu dem di ko rëb de ngir dunde ko laa li lëhu waaye du ko jël rek ngiree ne daf koy def ngir fokkese mi ngi noonu kon mbokk day wax ne kenn du xool ci biddiw yi xam nañ ne arab yi ak it yéeféer yi de manière générale biddiw yi dañ ciy jéem a xamee kumpa tey jii bari na ay intellectuel suñ dindi journal li ñuy jëkk a xool mooy horoscope horoscope boobu dafay am relation ci seen xalaat ñoom ak biddiw yi bu ko defee ñu ne yow tu es balance lion capricorne bélier kaza wa kaza yow mi juddu woon tey le 21 février bala 30 avril ñu ne waaw bisub tey bul jël benn décision décision boo jël da ngay échec waaw bisub tey de da nga am ku lay indil ay xabaar yu garaaw waaye nag bul tiit bisub mbokk loolu ndax mën naa nekk ndax mën nañ ñi judd ñoom ñëpp bokk benn programme xel moo ko jëkk a dàq avant diine ndax mosuñu gis ay cheikh yu bokk benn bis buñ juddoo ca seen dara bokkul kii am alal kii ñàkk alal kii am xel kii ñàkk xel kii kaza kon loolu ay wax la yoo xam ne jurit du ci basé wu amma nag biddiw yi yàlla da koo def li tahtadu biha fi zulumatil barri wal bahr ngiree ñu ciy tegtaloo soo demoon tey ci àll bi mi ngi noonu ba sun jamono yi tey da ngay gis koo xam ne da ngay ñëw ne waaw man de tey damaa bëggoon ñu dem pikin da ngaa bëggoon dem pikin ñu lal gis nga buntu këri màkka yi ñun waaw tegal sa jë ci biddiw bi da ngay dem bi pikin kee ñëw grand yof laa bëggoon dem mu ne gis nga ñay beeg ñax bi mu ne tegal sa gi ci ñay bi da ngay dem ba ba pikin biddiw yépp amoon loon na ñun ay tur yéen ndaw ñi ñu ngi leen di jàngal on peut s'orienter la nuit avec la lune ak l'étoile polaire yaa ngi dégg su ko defee ni ñu am étoile polaire croix du sud kaza wa kaza loolee ñi nekk biir géej ci la ñuy doon di tegtaloo amma leneen lu dul loolu yàlla defu ko ngir biddiw boo demoon nag ci xam-xam xamkat yi moom da ngay gis ne boo ñëwee ñu laaj la sa date de naissance rek luñ dañ la ko wax waaye dara du ci dëgg ay dañuy zann rek jort la même bu ñu waxee dëgg dañuy fen kon loolu ba mu ko paree mu ne xajit jullit du yor xaj du yor xaj ci biir yi taax mën na ko yor nag ci àll ba su dee da koy sàmmal ak juróom wala mu koy sàmmal toolam wala muy ànd ak moom ji rëbb bi rëbb goo xam ne nit ngir lu mu dunde la waaye du rëbb goo xam ne ngir fola lii rek la ñuy jële xaj yeneen ci bàyyi sam ne ne ku jël beneen xaj bu dul ñetti xaj yii xaj bu lay rëbbal bu lay sàmmal ak bu lay gardeel nee na bis bu nekk say jëf lu toll ne xiiraat dana ca wàññeeku mi nga noonu te loolu yàlla xam lan mooy poom ala kulli xaal ñu jël suñ bind bu jëkk bu mujj mu ne wala baasa bi xisaail ganam dara nekkul ci ñu tàpp jur ga lima fihi min salaahi luxumiha ngir loolee day yéwénal yàppam wa wa nuhiya an xisaail xayl tere nañ ñuy tàpp fas wa yukrahu alwasmu fi lwajhi sib nañ di ñaas ca kanam ya wala ba'sa bihi fi ghayri dhalik donte na dara nekkul bu dee ñaas nañ ko feñal fudul kanamam wa yutarafaqu bil mamluk gannaaw biir war nañ am ñeewante ak yërmande ca jaam ya wala yukallafu min al-amali illa ma yutiq duñ ko sant ci liggéey lu dul la nga xam ne attan na ko ca mi ngi noonu kon mbokk fii day wax rek ne lii di tàpp mënees na koo def jur gi xar yi ñu tàpp seen yàpp mooy gën a sell te it en général mooy gën a gaaw a màgg ci kuuy bi nga xam ne tàppuñu ko loolu it dagan na donte ne métti na waaye nag islam may na ko yonente bi alei salaam saxaloon na ko maadaama fas fas moom kenn du ko tàpp ndax njëriñam ba mu am ci tëboog ak liggéey ak dooleeg yu demee noonu rawatina bu dee mazhab malik bi nga xam ne dañoo araamal lekk fas da nga noonu dajaaraama lekk fas te la gën a yóbbu ñuy tàpp mooy ngir yar yàpp bi gën a gën a sell te fas bi su ko lekk ci mësëm maaj bu dee mësëm suñ càmm nag ko moom wala kulli xaal mi ngi noonu ala kulli xaal kon loolu la wax ci loolu amma mbokk doomu aadama moom kenn du ko tàpp allahuma lu dul suñu mbokki naar yi ak a bëri suñuy mbokk yoo xam ne dañ leen daan jële Sénégal yóbbu leen Mauritanie suñu demee boole leen ak seen soxna yi dañ leen daan tàpp waaye mbokk loolu lu xaram lu bon lu ñaaw la yonent bi alayhi salaam daana wax ne ku ñu dégg tàpp na ab jaamam dañ la tàpp wax ne loolu seen aada la woon kon loolu kenn du ko def doomu aadama mu ne la nga xam ne mooy ñaas ak jur dagan na ñaas ak jur dagan na ba mu des nag ñaas ci kanam soo amee xar walay nag bu la neexee ñaas wet yi ñaas tànk yi ñaas mu doon mandarga boo xam ne fuñ mën a demee ñu xàmmee leen waaye bu dee kanam kenn du ci ñaas mu wuteeg nag li nga xam ne moo xew en Afrique lu bëri ci goxi africain yi hatta Sénégal ñoo xam ne xeet bu nekk am nga ñaas yooyu def ci sa kanam mbokk loolooy dafa xaram kenn du ñaas kanamu doomu aadama ak loo ci mën a jublu loolee dafa doon lu xaram kon mbokk loolu mooy suñu bindu tey bi xam naa incha allah ñu bàyyi bilal noddu di xamal it ne. dimanche bi di ñëw incha allah la ñuy jël suñu bind bu mujj gannaaw ba ñu ngi bëggoon a dal benn téere bu ñu wax minhajul muslim boo xam ne incha allah am na benn mbokk bu ci am benn commande bu mu ci def yal na yàlla nangul ko fay ko su boobaa it jàpp nañ képp ko am risala dana mën a am téeréem bu defee ñu doo ko jox ñu amul risala kon ku indaale risala rek dañ ko jox téere insha allah waaw yal na yàlla nangul wallahu aalam wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain waaw alhamdulilah xam naa dafay laaj mu ne ndax jigéeni julit am na droit déposé pour nekk secrétaire ci établissement yi ala kulli xaal cosaan bi daal nekkul liggéeyub secrétaire cosaan bi mi ngi nekk góor ak jigéen di wéet ci benn bureau su ko defee secrétaire ba bu dee ni dafa nekk foo xamee ne nii wéetay amu fa loolu lislaam du ko bañat loolu waaye daal bépp jigéenu jullit war naa moytu nekk secrétaire particulière boo xam ne moog patron dong ñooy bokk tëju ci bureau bi kenn du leen ñetteel loolu nga nar caa def ay ati at booleeg musiba bi nga xam ne tey dolli nañ ko ci secrétaire secrétaire dafa yemoon rek ci dossier yi tey dañuy gis patron yu bëri secrétaire bi dañ ne dafay war a lijjanti li ñuy lubbu directeur bi buy génn mooy xool costume bi defar cravate yi defar kii yi defar yooyu yëpp tey dañ ko dënk secrétaire ba nga xamee ne lu ci bëri si ñoom la ñuy defal directeur yi duñ ko sax defal seen i borom kër yal na yàlla dolli yërmaande suñu mbokk bi laaji Fajur Gueye daana wax secrétaire yam nekkaloon ci Senelec ni ngeen di waxee ak directeur yi bu ngeen ko doon wax ak seen i seen i borom kër kenn du leen jiitu aljanna mi ngi noonu waaw naam bisimilah naam naam.
xam nga moo secrétaire ci moom. parce que am na patron patron yu jël secrétaire bu góor.
waaw wala assistant.
naam naam directrice wala.
naam wala ba la jël secrétaire.
naam naam ak secrétaire rek.
naam naam naam naam day wax rek ne am na jigéen ñoo xam ne ay chef d'entreprise lañu ba pare jël secrétaire góor. waaye mbir bi daal nekkul ci secrétaire ak comptable ak leneen mi ngi nekk ci wéetaay góor ak jigéen ci benn place bu leen kenn gisul loolee la l'islam di bañ wallahu subhanahu wa taala aalam naam bismillah naam waaleykum salaam wa rahmatullah waaw bu ñu nee daaxile izar izar mooy lu ñuy woddoo arab yi xam nga ne xamuñoon suñ tuba yi dañ daan woddu lu ëpp ci ñoom su ko defee lu mel noonu nit bu amoon dañ naan ko waa ji ne sumi tuba yëpp ñu xooj ko ci ndox mi nga xam ne ci la jàppe doo ko ko sotti waaj loole mbokk mooy sunna allahuma loolu suñ jamono yi tey ji moom li li ñu leen ci wax moo leen ko moom lañ ci wax wallahu subhanahu wa taala aalam ndax greffage dafa nekk ab mbaxane ala kulli xaal daal la nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon mooy yàlla dafa rëbb waa ji nga xam ne nii dafay yokk ak kañ koy yokkal kay yokk ak ka koy yokkaloo loolu moo tax ba ki jël mèche bi takk ci karaw gi directement ak ki jël greffage bi këpp ci kawam loolu seen différence gëw ma ne ne nekk na loo xam ne ni lu bari la loolu moo tax ba dal li ñu gisoon mooy jigéeni jullit da doon greffage la ak mèche ak lu mu mën a doon lépp loo xam ne boo ko solee nit ñi jàpp ne sa karaw moo mel nii te fekk ne loolu bokkul ak sa karaw loolee dafay nekk ci yokk ya te loolee bu ñu delluwaatee ci yenn téere rawatina Muawiya ba mu ñëwee ca Madina gis lenn ci jigéen ñi def loolee loolee mu ne waaw ulama wu Madina yi ana seeni borom xam-xam loolee dafa bokkoon ci ñi koy tere kon bu amee ñu ko wax ne dara nekku ci it am na ñoo xam ne dañ ne yokk rek la wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah naam naam wa rahmatullah waaw loolu la naam loolu la ñu wax ci ne doomu aadama biñ jàpp ne dafa am seytaane bu ko dogulaa ne njort la mais warul nekk yaqin ci waaju ñu indil ko malade rek mu am yaqin ne kii seytaane nekk ci moom mën na njort ne seytaane nekk ci moom ñaan ñaan ya nga xam ne ñaani ruq yi la su ci yàlla defee tan xëyrun su ci yàlla deful tanit mu xam ni deful tan ñu jéem a seet leneen aka bari ñu ñuy jiñ ne seytaane moo nekk ci ñoom fekk du dara ay crise épilepsie la ak ay yeneen ak yeneen ak yeneen yu bokkul mi ngi noonu am nañ benn mbokk buy ñëw fii ci ñun suñu mbokk silla yal na yàlla sàmm ko seen benn jigéen daa xëy rek sànni séri dox ci mbedd mi yuuxu ñu dem ci maamani yi ku ne ni jinne la ak nangam nangam mu am benn magum commerçant bu nekkoon fii mu ne waaw yéen yi ngi juddoo Dakar yoroo Dakar bala ngeen di dem ci di du ngeen dem hôpital la pare bañ ko yóbbu hôpital psychiatre bi xool ko wax ak moom laaj ko fekk xale bi amul lu dul ay jafe-jafe la am ci kër gi muy sëy ñu jox ko ay médicament mu nelaw ba mu ci jógee ci la la cekk wér ci dañ ñëw ne ay jinne la donc li ñuy wax mooy bañu ñu mocc am na mocc ni mu mën a amee parce que gëm nañu ni jinne day dugg ci doomu aadama moo tax borom bi subhanahu wa taala ne allazina yaakuluna riba la yaqumuuna illa kama yaqumu lazi yatamassahu yataxabatu sheytaan min al mas kon loolu day am waaye nag li nga xam ne moom lañ nanguwul mooy ubbi sab centre rek ku ñëw nga ne ngelaw moo la dugg jinn moo la dugg ngelaw moo la dugg jinn moo la dugg lu am ci yaqin boo xam ne da nga koy gëmloo nit ñi mbokk loolu mënul nekk lu dul zan njort la mën a nekk soo moccee wér na xayrun soo moccee wérul xayrun sinon bari na doomu aadama yoo xam ne nii ñoom ñoo leen di jox ay jinne mbokk xoolal tey jii nit ki toog rawatina jigéen ñu ne ko ay jinne nekk ci yow kooku ndax dana ne la wuti guddi déedéet fu mu toll la jinne baa ngi ci man loolee kon loolu moo tax daal ñuy wax dàqu ñu mocc à cent pour cent waaye dañuy wax moytu leen mocc bi xew sunu jamonoy tey bii mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala aalam waaw naam bismillah naam waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh waaw dégg nga loolu waaye dégg nga ma wax léegi ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax na ne dem leen ngeen naan ca sow ca ca sowu gilem ba ak sowu gilem ba waaw moom laa la wax dama ne loolu boo dee dégg nga loolu it la nga xam ne ñun moom lañ la wax mooy la nga xamee ni nii mooy lu jóge ci li ñuy lekk loolee sawam nekkul am sobe looloo tax histoire boobu nga xam ne histoire bu siiwa siiwa siiw la yonente bi alayhi salatu wasalaam ñooñu ñëwoon madina feebar dam leen dem leen ngeen nan ca saw ba amma ka nga xam ne def na sobe la nag kooku la ñuy laaj moom ban tegtal moo tax mën a sobe la mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam naam xanaa kon ñu mujjee ci mbokk bi rek bismillah naam waaw wala après incha allah waaw bismillah waaw waaw ala kulli xaal lépp loo xamee ne nii lor la loolu l'islam da la ko toppee te bàyyi ma yooyu it ils sont reconnaissants na benn ci imam yi may déglu muy nettali benn xaj boo xam ne benn médecin da ko romboon tànk bi damm mu yóbbu ko plâtre ko téye ko foofu faj ko ba mu wér mu fexe nag naxanteeg moom ba dàqu ko ñu toog ay fan mu médecin bi ubbi buntam rek fekk xaj bu ñëw ak beneen moromu xajam bu tànk bi damm jëm ko kii ba waaw donc ñoom ils sont reconnaissants su ko defee yow maadaama indiwoo leen da nga koo def rek ci yàlla tax dàq leen seen kéemtaleel kattan leneen la ci des yàlla du la ko toppi insha allah waaw mbokk bi dafa yëkkati woon rek avant muy wax kon ñu mujj ci moom rek bismillah waaw waaw ndax bokk na ci gaafu jigéen ñàkk am doom wala kuli xaal am na ñoo xam ne nii bi ñuy lim gaafu jigéen ñi boole nañ ko ci loolu mooy takk soxna amul doom waaye ala kuli xaal mbokk daal la nga xamee ne nii mooy gën a dugg xel mooy doomu aadama bi la nekkul ci loxoom yàlla du ko ko toppee su ko defee la gën a nekk daal lu gën a diggu doomu mooy gaafu jigéen ma nga yem ci ay jëfam ci jukkoom yu ñaaw ñàkk déggal borom këram ñàkk di ko indil ay tolof tolofu histoire ak yu demee noonu loolu daal moo gën a nekk gën a maandu ki que ndaw si ñu taxé ko ci loo xam ne moom loolu nekkul ci loxoom na doon jëkkër yee dee wala ñàkk am doom wala leneen ak leneen yeneen ci bi alei salatu wasalaam soxnaam bi mu gënoon a fonk mooy aïcha radiallahu anha te yéen ñëpp xam ngeen ne aïcha amul ak moom doom amul doom sax ci dundam mboole seen loolee kon mi ngi noonu yal na yàlla sellal suñuy pas-pas dafa la ñoog afiya fi dunia wal axira wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain